en tout cas daal sori na sori na trop sax hey Malick. kër a ngi de. kër gu mu yaay fàtte bañ nekkee xale. ay jamono fii rek. parce fii daraan daraan wàcc. kër père <laughs> kër père. man fii man nag changé na quoi. changé na trop kër toos. ah. gars mën nañ tàmbale liggéey bi. laay waaw. yaakaar naa ni man fii fii fii gëj nañ fii mu ngi fi gëj boobu ay gone lañ. waaw dëgg la moo tax sànq bu may dugg si maa ngi xool di yër. non si. mu fàttali ma lu garaaw. mais nag koor gi metti na tey. waaw moo moo tax kay ba ma ba ma commencé. lii yow foog ñu jëlee foog ñu indi nii dafa sori. waaw sori na moom a bàyyi kër gi sori na sori na sori na fii fii fii mën nañ ah, waaw ndax ndax buñ neexee sax mën nañoo xaalis fii yëpp. ah hmm. répété bu heure buñ neex. ñun mën defoon luñ saf daal kon. bon instant instant instant yi kay la tey la hmm. tey kon. bu bokk bi xanaa bokkoo ko. waaw bii bii bokk bi de mu ngi nii caat moo nekk nii. Ah. damaa bëggoon ñu jàpp fii ba ci kanam tuuti rek après ñu génnee caat. Ah, waaw waaw mooy gën sax xam kii. <laughs> bañ sa koor gi yàqute instant bii xam naa moom. <laughs> day yuuxu loolu. mais waaw noonu la nañ jàpp temps bu sedd rek <laughs> waaw léegi yow ñëwal. waaw jàppal temps ma xam fu fu may hmm. duggee waaw. maa léegi nañ ko jàppal gaam goo xam ne nii. moom day def lu ko lay doon. voilà mooy mooy boobu noonu. waaw boobu noonu di di def sax. tempo tempo. tempo tempo bi. déedéet. ban bu nooy na nooy. na nooy waaw na nooy kon ba mel ni xaal. waaw ci la def ay. as moo ngi yëngal. temps bi temps bi mënu ma see tegu. temps bi temps bi temps bi daal daal di daal daal di. dama ci mën a léegi. ay la ñun am na luñ fàtte. luñ fàtte day la tey nag. kii nii tàgguwoo leen kooku. kooku kan mbaar. mbaar tàgguwoo leen ko. way yow. day la mbaar mbaar sax fu mu dëkk wax na dëgg de tàggul mbaar Aliou Mbaye. mbaar mbaar fu mu mbaar. ah jël nañ ko tàggu. waaw kon ma rek ñu xool ko. kon pataas. ah dégg nga loolu. waaw léegi wuyu na. waaw waaw kon kon dégg na ko. kon mën nañoo développé acca. acca waaw. loolu la ñuy jël léegi acca. parce que man li mooy nii sant bi man foofu nu mu demee nii. Ah, léegi comme comme du nooy bi liwul. nañ ko nañ nañ ko aj. Ah, kon nañ ah. kon kaay. ay compte jàppoon jàppaloon naa la gàmm boo xam ne man jëj yi man sama yaram tàngoon na sax mais da nga kaa yàq loolu yëpp nga may xool bu ma xool waaye bu ma xool. c'est que awkat yi tamit ñëwuñu ñoom dañoo waroon a ñëw mais liggéeyuñu. loolu la yow tamit gàmm jàpp na nga ko mënoo wax. mais fàtte ngeen paa bi sax. waaw France. waaw. fàtte ngeen paa. maa ngi yaay fàttaliku ay jamono. day nekkee xale. waaw tos am na bàq bu bëggoon. baax programme bu mu mënti dem loolu la koy tojee. loolu la koy tojee tey trop. maa ko bëgg de. am na am na lu baax la jërëjëf jërëjëf. waaw mais. génn ci weeru koor. maa nga pour ñu répéter pour après koor dama ne Saalum Nder mosoo maa yëpp te bu ma yëpp newoon naa la sabar weeru koor bu mu génn looy répété te yéen la ngeen tëgg dara baaxu fi. ñu tëggaloon ne jàpp temps nga nga mais bu ngeen dee doomi géwél mais li ngeen tëgg baaxul sàkkantuma weeru koor gi. ah ñu ko jàngaloon lii laa leen jàngaloon taas mba taas bi dara ndaj wura kikin wura dada dabi sa kikin wura dada dabi sa wura wura bi ta ta bu naj bu naj ba fa nga nu yóbbu bu naj ba ma sama koor gi bu leen ko yëngal dama sonn dégg sabar yi laa bëgg ngeen dugal ko ci biir papa kenn du fi dugal ñene pete après koor gi ñu ñuy génne lii bu bees nga nga ñu ñu ne damay dugal sabar yi ma jëli leen ba fële yenn yenn lii mu diis ba bëgg a dee nga naan ñu dugg après koor gi moom laa daan wax nga di ci teg baat day tey nag laa si teg baat Malick Mbaye Ali Mbaye bàyyi ñu répété nag tos bàyyi ñu répété rek après koor gi rim daaw rek tak tos léegi ñoom luñ tëgg baaxul loolu moo xam léegi baaxul nga jàpp ko ci def kon kon def ko am am xam nga. xam nga fa tabaar fa kàlla gis nga man gis nga Doudou Ndiakou Boros alaaji bi seen seen alaaji ba Samba ca Kaolack ba si laa ñun ci seen kër Fane laa ah. man lii dama xoon nam xam ko boobu moom wax ak yow sax xoolal li ah eh mais tos loolu dafa garaaw tos loolu waa ay nambe xam nga dambe wéy leen sabar ngeen jënd ko ngeen tëgg nii wéy leen sabar ngeen jënd ko yow sama jàmbur bi sax nee xool nga ko wéy leen sabar yi rek ngeen jënd ko noo xool na ko bu ma leen fekkaat foofu nag wala tos ma bi doon nopp mais dañu ko fee nekk dañu dem géej ay ñu dem géej ah? ñu dem géej waaye tos ba melu BCC fa yëngu na moom kay yëpp la yëngal. mais <laughs> notes yi muy tëgg nii képp kuy tëggkat yëngal na bàmmeel bi ay 25 mbay day fay ñoom